moom le 8 mars wax dëgg yàlla jigéenu Sénégal yëpp mais di ci jiital moom la yàlla jiital la première dame Marème Faye Sall mooy première dame di Sénégal kon nag booy jël sa kàddu di ko delloo jigéenu Sénégal gërëm leen sant leen ñaax leen wax dëgg yàlla soutenir leen ci seen bis boobu la premier dame ngay jiital premier dame boo xam ne ne wax dëgg yàlla jigéen joo xam ne ne ju baax la jigéen ju xam Sénégal ni muy tëddee jigéen ju xam ne ne li muy def ci wàllu social ñi bëri comme dafa bëggul ñi koy communiquer mais boo demee ba xam lu muy def rek wax dëgg yàlla da ngay yéemu ci yàlla jigéen boo xam ne dafay dem ci arrêt taximaan yi jigéen boo xam ne dafay dem ci euh, terminus car rapide jigéen boo xam ne damay da ngay day dem ci hôpitaux yi jigéen boo xam ne day dugg ci mbënd mi jigéen boo xam ne day dem ci euh, banlieue bi tabax ay dus loo xalaat rek loo xam a ngi ci dem na ba génnee léegi jënd benn xaw boo xam ne hôpital oto hôpital ba nga xam ne ne barki Dembu Njaay la jógee Kaffrine donc euh, ñu ñu koy xaar à maatam donc fu nekk rek foo foo sànni sa bët rek fa fekk jëf Marème fay sal loolu nag wax dëgg yàlla jigéen ñëpp ah encore boole ci suñu soxna yi suñu doom yi bàyyi ñu kenn ak euh, soxnay kilifa diine yi soxnay kilifa aada yi ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di vraiment euh, bis bi nga xam ne le 8 mars la. Euh, di leen ndokkeel taxaw seen kanam taxaw seen ginnaaw ah di leen accompagner ci lépp loo xam ne ni bis boobu jigéen lañ ko jagleel.